D'accord. Adama Fall. Oui, euh, comme chaque matin, la presse a traité sur euh, des questions d'actualité. Euh, les deux questions politique bi bëriwul tey parce que politique bi c'est peut-être euh, l'affaire Amadou la position de Amadou mais l'aspect économique et l'aspect juridique ci lañ nekkoon moom lañ nekk donc sur le plan économique ils annoncent euh, que le gouvernement mi ngi nekk ci beesu Euh, prix de denrées de première nécessité yi donc ça c'est une très bonne chose il faut très bien l'accueillir parce que population maa koy xaar deuxième chose c'est euh, ce que les gens n'ont pas beaucoup parlé c'est le non appel d'offres bi nga xam ni am na sur l'affaire des intrants des semences parce que 65 milliards aussi warul nekk euh, entente directe dafa war a nekk appel d'offres par rapport aux, aux semences et je pense que le gouvernement doit apporter les corrections Euh, par rapport à cette situation là parce que jàpp naa ni ñoom loolu lañ doon xeex donc suñ ñëwee waruñu def la même chose maintenant sur le plan juridique c'est la convocation de de Bah Diakhaté dafa am entente directe daal maanaam dañoo joxe. Euh, marché dama ne 65 milliards yi defuñu ko appel d'offre. waa moom laa wax damay laaj dama bëgg nga taxaw ci mu leer. waaw kan lañ ko c'est-à-dire loolu tax ma ne la 65 milliards pour les entrants et 65 milliards presque wax na ko nee nañ defuñu ci appel d'offre. waaw. donc su nekkee def nañu ci appel d'offre rek entame direct la parce que munu demee neneen parce que 65 milliards normalement appel d'offre la waroon doon donc li nga xam ni moom la ñu jaayoon sénégalais yi mooy euh, il faut de la transparence dans ce qu'ils font aujourd'hui peut-être nag mun na yàkkamti mën na yàkkamti parce que dañu nekk ci campagne euh, agricole moo tax mu demee noonu beneen bi c'est l'affaire de l'arrestation de de de de Bah Diakhaté et de et de maintenant apporter quelques précisions rek parce que aussi euh, askan bi nañu xel il n'a pas été poursuivi pour injure publique Bah Diakhaté n'a pas été arrêté pour injure publique il a été arrêté par rapport à des euh, offenses au, au chef de l'État et diffusion de fausses nouvelles loolu lañ ko poursuivre maintenant sur ces sur li nga xam ne lañ ko toppee il a apporté les réponses nécessaires ba mu nekkee ba mu demee taxaw face au au au policier par rapport à ça il a apporté les réponses nécessaires andi preuve ya ca war par rapport ak li nga xam ni moom lañ ko laajoon te li tax nit ñi di wax un injure publique ces vidéos là datent de 2022 ces images ont été prises en compte par la loi d'amnistie et les policiers ont voulu lui faire reprendre les mêmes propos qu'il avait tenus il a refusé moo tax démb il a refusé de parler parce que su nekkee propos yi dañ ko amnistier su ko reprendre day dugg ci dootul dootul bokk ci amnistie bi dañ ko ciy topp il a refusé catégoriquement de reprendre ses propos et il a carrément que su nekkee da ngeen ma toppee ci lii il faut demander à Ousmane Sonko de revenir sur la table et revenir sur ces propos là moom la ca wax beneen biir bi nga xam ni moom la moom la wax ca biir enquête ba parce que jot maa ngi fa woon il a dit que. Ah, yaa ngi ko fekkee. non pas audition ba. pas audition bi moi j'ai parlé avec lui il a dit carrément que euh, jox naa leen preuve par rapport ak euh, la fameuse euh, bàyyi yooyu document yooyu ñu waxoon ci par mbirum kër yi foofu la avance de chef de l'État joxe na document yëpp moo tax deuxième jour bi il a refusé de parler parce que dafa signé PV d'audition